retour sur le plateau matinal Allô Sénégal ñu wéyal li nga xamante ni moo di la matinale ak euh, sunu yeneen naataango yu ñëw daal di ñuy rejoindre ci plateau bi euh, ma dalal Ndeye Pétaw Pétaw maa ngi lay nuyu. defee Aïcha naka suba si. sant yàlla la nga nuyoog mbokk yi. tey da ngaa def Saint Valentin rose maa xaw def. <laughs> am na solo noo def. may fii naka affaire yi. alhamdulilah ayca mbégte lay doon ak bànneex comme ni koy defee tous les mardis et les vendredis suñu deuxième partie Allô Sénégal seen rubrique bi nga xam ne xew-xew lay doon wala fait divers nga xam ne lépp loo xam ne xew na ci réew mi dañ leen koy indil du nuyu les chers téléspectateurs nga doxal. dalal ak jàmm day pétaaw ñu dalal Asia mu ci plateau bi Asi ñu ngi lay nuyu. naka nga def Camara ça va alhamdulilah. ñu bàyyi la mu nuyoog mbokk yi. waaw tey euh, dañ koy débuté ñun tey tey la suñu lundi ñun tey. donc dañ koy euh, débuté di ko nuyoo sunu euh, bokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñun la ñuy safoo di seetaan chaque matin duñ ci tayal benn yoon du lundi au vendredi di nuyu ñi nga xamante ne wala di leen remercier sax sunu invité yu fi jógee di nuyu waa plateau bi yëpp ay chance su baaxee rek ci kanam tuuti ñu mën a ñëw ci bés. dinañ ci ñëw ñu dalal Keynaa mu ci plateau bi Keynaa ñu ngi lay nuyu. naka su bés yi ca as la forme très bien ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi. c'est toujours un plaisir di leen jaajëfal bu baax a baax di nuyu également ñi ma bokkal plateau bi mais aussi euh, comme du lundi au vendredi nu ñu koy defee ci suñuy astuce wala góorgóorlu donc Aïcha tey dañuy daal di ñëwaat yeneen astuce. Aïcha ñu ànd ak Asia ñun ñëpp jox ñu bës yi Asia ñu delloo la lundi. Euh, waaw Aïcha kon ma bongoo ko rek kon ma la ko waxee <laughs> tous les jours benn jéye bu doy waar euh, boo xamante ni rek dal na ci kaw benn xale bu am. naa dama koy euh, briefing rek bàyyi ki nga xamante moo di euh, Pétaw mën cee xuus bu euh, baax a baax dafa génn àdduna nag waaye ki nga xamante ni moo di copainam moo ko rey nu mu ko faatee nag daf ko égorgé ci baat bi muy daw ba génn ci buntu saalam deret bi bëri bi xam naa moo tax ay Aïcha mujj génn àdduna ci kaw lan danga ma danga ma danga ma dama bëgg ñu bàyyante ku góor ki nekk ko duma la bàyyi loolu daal la amante problème ba xale bu jigéen bi génn àdduna na ci lu ñu jot am ci information bu euh, Seneweb euh, su ko defee rek Aïcha xam naa damay bàyyi après euh, Petaw mën a xuus ci mbir mi comme moom mooy xool li nga xamante ni rek moo di xew-xew. en tout cas lu doy doy waar la j'ai regardé le témoignage du père de la fille c'était vraiment triste lan moo waral loolu je pense que bon. dañuy bàyyanteeg bàyyantuwuñ est-ce que loolu jar na jar na rey nit ah lu doy waar la lii moom xew-xew bu mag a mag la ñuy leen di masaw bu baax a baax ñoom la famille Pétaw. Mhm. dinañ ci def demoon nga fa. dem moom nga àndi tey. waaw ci kanam dinañu gën a yaatal ñu ànd ak Asia Asia ñu jàll ci beneen info. ñu jàll ci euh, people bi Aïcha ki nga xamante ne moo di Viviane nag moom it moo sol benn robe boo xamante ne nag Aïcha fu mu toll nii euh, def na euh, buzz ci toile bi robe boo xamante ni dañuy wax ni que moom kilifa la quoi qu'il en soit waru woon sol li nga xamante ni rek moo décolté ba génne li nga xamante ni rek moo di sein yi ci kaw loolu nag polémique yi Aïcha bëri na lool nee nañ liy jikkoom la xanaa daf ko wanewul woon comme mu ngi génne génne ay clip nit ñi ñoo ngi koy bëgg wala fans yi ñoo koy encouragé moo tax tey mu def li nga xamante ne nii euh, Séné benn Sénégalais du ko nangu internet yi nag nee nañ euh, lii nag moom du ko wane parce que dafa am xale yoo xamante ni dañoo euh, roy ci moom ba tax rek mode solinam la ñuy solu mode coiffuram la ñuy coiffuru ba seen tour sax dafay am comme par exemple bëgg Viviane ba di woowee boppam Keyna Vivi donc nag nee nañ nag na na xoolaat mode colinam sinon li nga xamante ni moo di yoon rek dina daanu ci kaw. moom nga ci tegal benn kii sax ah day ah, euh, ah? ndax li mu def nii. waaw ah. da nga mës a gis ma def ko. non damay laaj quoi yaari star la bon. damay laaj def lu gën a garaaw li boo amee almadi bi. boo duggee ci boîte mais almadi bi nga wax lay ci boîte bi xam nga tey Viviane moom. li la est-ce que si parce que dafa mel dañ koy takkal micro. star la rek xam nga fii moom star la. nekk star taxul nga jël sa yaram bi vilipande ko ci biti. waaw nañu waxante dëgg. waaw léegi xale dañ koy roy. waaw léegi bu waaw <laughs> ah, c'est aussi simple que ça. non mais non mais non mais pétaw faut faut aussi nga nga nga cadré. anam xale yi waaw loolu la wax sax nag. xale yi dañuy roy ci ñii Mame Makhtar Tonton Makhtar anamu. tonton Matar tonton Matar foo ma woo ko si plateau bi. parce que lii di xew ci réew mi moom ñu waxtaanee. ah yaa boole Viviane nii li occupé ak Ahmed <laughs> <laughs> dem. ñu terminé ko ak Cristiano Ronaldo Aïcha. 16000 bi euh, nga xamante ni euh, am na foofa ca euh, Maroc moom nag foofa ca Marrakech dafa am benn hôtel bu mag boo xamante ni rek Aïcha toll na ci plus de cinq virgule 8 milliards ci sunu xaalis ñun muy franc CFA la ko tabaxee mu doon hôtel boo xamante ne gën. gën a rëy euh, ci foofa ca euh, moom rek la jël euh, jox ko ñi nga xamante ni rek la seen kër yi daanu ñi nga xamante ni aussi seen doom yi amuñu lu ñu lekk kay naa amuñu lu ñu lu ñu fu ñu dëkk yére lépp mu jënd jox leen ne leen nag nañ fa toog ba jour bi nga xamante ni rek def nañ defaraat nañ fi nga xamante ni fa la ñu nekk mu doon loo xamante ni lu lu lu daw yaram la mu doon loo xamante ni lu rafet la gest bu rafet la la la def ba tax rek ñu bëri ñoo ko ci ñaanal ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk fa ca euh, hôtel bi nga xamante ne rek moom la Cristiano moom Aïcha am na solo euh, en tout cas euh, lii lii mooy àddina boo nekkee ci mbir da ngay fexe réaliser dara mm-hmm. Cristiano moom xam naa ne moom ay sëtam ak sët sëtaatam mënunoo tëdd nelaw bon euh, c'est c'est vraiment noble ouais. parce que àdduna noonu lay doxee su fekkee da nga am alal euh, il faut que nit yi profite aussi surtout sax bu fekkee situation yi nga xamante ne moom moo dal marocain yi encore une fois da leen masaw si jéye bi nga xamante ne moo tremblement de terre bi bon c'est bien quoi c'est c'est bien c'est à encourager et puis mm-hmm. j'espère que ñeneen ñi aussi tamit euh, ñi nga xamante ne ñuy gagner autant que lui gagne autant que nous ça peut ñu mais nañ def pareil wala ñu pas dem joxe hôtel mais joxe xaalis subventionné pour marocains yi euh, jàppale leen mën ci génn pour les sinistrés quoi. voilà il a eu plus de 2000 morts. et beaucoup de blessés. voilà plus de 2000 morts 2700 moom waaw donc euh, c'est c'est bien quoi. ñu masawu leen aussi bu baax parce que y a des Sénégalais qui vivent là-bas. ah une partie de ma famille qui vivent là-bas. ki qui vit là-bas plutôt. ñu masawu leen bu baax a baax séisme moom fu mu mënti nekk euh, dafa dafa dafa daal di. dafa metti asi bés yi jeex na. merci beaucoup euh, mais Cheikh Ahmed Cissé aussi mu ngi def buzz ah. ci kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko je pense que. mais il a pardon ouais. ça a tour des réseaux sociaux. Euh, ba waa Jamra sax je pense que éliminé nañ ko. Mhm. ci li nga xamante ni mooy ONG bi nga xamante ni adhéré woon na fa et puis voilà il a demandé pardon mais euh, yi moom même boobaaloo. lan la tonton bi nga wax léegi tonton nañuy nañuy moytu nañuy moytu wax tonton bi nga wax léegi nee na loolu amatul kii parce que moom dafa nekkoon sous liberté provisoire donc na yoon def li nga xamante ne moo di liggéeyam voilà mais nañuy moytu wax wax ju bëri mën na la dugal ci loo mm-hmm. xamante ni ndey ak sur ak surmédiatisation waaw surtout voilà pour man bon y a des gens yoo nga xamante ne ils sont surmédiatisés je sais pas nag mba xam bi ñoom la wala foot bi média du ma wax sax média pas site internet yi ak chaîne YouTube yi parce que ñooñu bon mënuma leen classer média mais daal deux parts yooyu xaw ma kat moo siy fautif. mais parfait ku nekk dafay def erreur mais c'est-à-dire booy wax dangay xalaat. déggoo dama ne ah. yaa war a wax. Mhm. yaa ñu sax bu mun a tax a wax loo xamul. làmmiñ moom buy faral di wax day def accident. waaw dañuy fexe baax a baax surtout ay affaire ngëm-ngëm yooyu. doy na waar voilà il a demandé pardon. waaw ko baal quoi Sénégal la nekk mu góob. merci beaucoup bon, merci à toi je dis apparemment c'est un coutumier des faits mais est-ce que à chaque fois soo defee buur nga génn baal ma boobu. <laughs> est mu ngoog euh, ñu dikkaat léegi léegi rek dañuy ànd ak Keina dans ses astuces après ñu daal di jeexalee ak Ndeye Pétaw.